waaw jërëjëf man nag dama jàpp ni si si samay habitude bu fekkee dafa liste dafa génn sélectionneur bi joxe ko du ma ci def ay commentaires yu bëri mais mën nañ constater que ne am na tey ay joueurs yu bees yu ñu indi donc ce qui est pour moi une très bonne chose bu ñu defee analyse beneen beneen analyse mën nañ ne équipe bi demoon coupe du monde. Mm-hmm. pratiquement am na peut-être sept à huit jours yi nga xam ne demoon nañ ko doon bokkuñu ci liste bi loolu mooy firndeel ne euh, ak dëgëral wax bi nga xam ne dañu ko doon wax démb équipe nationale buntu bi dafa ubbeeku dafa am ñuy dugg am ñuy génn parce que une sélection c'est les jours les qui sont en forme par rapport au moment où on fait la liste mais je reste persuadé que ne bu ñu gisee potentiel joueur yi nga xam ne ñu ngi nekk ci àddina bi di football si nekk si yenn club yu mag yi di football mën nañ ne tey Sénégal mën nañu yaakaar que lii nekk suñu kanam mën na nekk lu neex ndaxte produit yi ñu ngi fi et organisation mu ngi fi.